benn Pierre itam jigéen ñi na ko nekk nangul sa jëkkër noonu sa amee góor gu gëmul kàddu yàlla gi te gis jabaram di dund dund gu sell boole ci wek ko loolu dina ko gindi ci lu àndul ak wax bu seen taar aju ci col maanaam ay létt wurus mbaa yére yu rafet waaye nay taar bu sax bu nekk ci biir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 mooy ndekkiteel Yeesu Kirist mi yéeg asamaan toog fa ndejooru yàlla mu tiim malaaka yi boroom sañ-sañ yi ak boroom doole yépp